moom sëñ bii moo ma ne ci làmmiñal boppam Omar Mani Fall mu ne ma wuutuwuma Seex Ibra teg loxoom ci dëndam ne moo ma ni nag ci borom ku ci moo ma ni Omar Mani Fall mu ma wuutuwuma Seex Ibra teg loxoom ci dëndam ne ma man kon nag da ngeen rafetu njort da ngeen dalal seen i xel bu baax sëñ bi nee na li mu yor yéene a leen te sama borom daa leen ci jote jàpp leen bu baax a baax